saa da ngay toog ci buntu école nga gis mag bu ñëw ne la mboq mi laay wër. te le PDS euh, Abdoulaye Wade la entre PDS Parce que faut séparer. Il y a des wadistes, gens qui ne sont pas PDS qui sont wadistes. Il a son en personne. moo dugg ci xolu Sénégalais point. Cheikh continuel ñu ñu ñu accéléré waaw. continuel continuel. dinaa ñëw d'accord. je laisse le soin. aux Sénégalais, aux téléspectateurs euh, de trouver la réponse Omar Faye a fait une analyse donc euh, bu lii même sa mbër su demee bu bëree même bu daanee. Mhm. war nga xoolaat yow sa stratégie nan nga def. Mhm. Euh, Ablaye Wade le PDS au-delà de Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade euh, rôle yi doon joué bu njëkk ba. Omar Tall mais Nafi t'as un problème pour m'écouter est-ce que wala tu n'es plus démocratique. non mais wala tu ne eh, yow yow yow Nafi Nafi damay su may su may wax su ma xalaat di analyser saa ma toogee fi. je le fais ak su ma gis-gis ak ni ma koy analyser parce que tey wàllu c'est moo mës a nekk PDS moo mu sa nekk moteur boobu mhm. quand on a eu problème bi ñu la fi woowee yow ak euh, Moussa Diakhaté mhm. boo ko gis-gis Pape Diop jaar na le mhm. PDS jaar na le le fait que ñu diviser seen force mais dafa feeñ ci ci élection bi waaw ba baa ma ñëw na fi baa ma rek s'il te plaît Bara Gaye qui en termes de bilan. mais mais cher. cher on, on dit très souvent on dit très que problème mu PDS peut-être su ma doon dellu ci na fi euh, loolu laa ko doon laaj c'est c'est Karim Wade qu'en est-il réellement. oui mais il faut ma ma ma ma préciser su ma pensée. Mm-hmm. bañ ko soxla sax. Baara Gaye Yewwi moo ko investir mu gagné yëmbal. bëgg na sax ku bëgg. ko investir. te même waaw justement. Baara était maire de la commune de Yëmbal Sud en en termes de bilan moi je le dis am na lu mu def yëmbal parce que boo ñëwee ci gox làmp tàkk foon nga góorgóorlu taal say làmp nga ñëw ci gox dawax ñafe dispensaire tuddee pakoti ñafe centre commercial en termes de réalisation personne ne me dira du jobkat mais après pour des problème politique de positionnement ou d'orgueil ou de calcul politicien ñu extirper ko comme si de rien n'était. kii su amuloon flair politique. am un bon appareil comme Yewwi il ne passerait pas c'est-à-dire yenn choix yi yenn erreur l'autre vérité nañ ko wax Karim dafa am responsabilité bu mag mhm. responsabilité bu mag bi mu am mhm. mooy papaam dafa am lu mu tabax teg ko oui mu am injustice ñoo ñëpp nangul ko jàppal ko téel ko man tey moom daa waroon am responsabilité de réunir tous les fils de Wade il ne le fait pas il ne l'a pas fait au contraire. mais ma ñëw ba pare toog naa fii télé wax ko vendredi passé. Karim n'est pas l'héritier mais ma vendredi bi passé li ma toogoon wax laay waxaat fii Ablaye Wade eh, jurul doomam en terme de fit. non bàyyi bàyyi yooyu. waaw mais je donne mon avis. non Nafi Nafi après jurul doomam moom kenn du ko wax mag bu day ni Ablaye. je parle pas français. Nafi Nafi da nga non non Nafi soo waxee loolu. non comprendre non non non baa ma defar wax ji dama ne la Ablaye Wade fit bi mu am jàmbaar gi nekk ci moom. man fii Ablaye xam naa ko ñëw nañ fii policier na ko doo fi jàll mu dem jaayante ko. yow fii nga nekkee PDS di fitu Karim Wade xalaatuñu woon ni. wuyu ma ma na fi na fi na fi na fi jàllo na fi jàllo le problème la responsabilité vous revient à vous tous ngeen gis ñu ne ngeen toog di ko seetaan la collective bu leen ko pas je suis pas là now next a de l'histoire du Sénégal. ku jël pour la première fois déporté un Sénégalais. yéen a a toog man musuma bañ a défendre Karim Wade munuma eh. a ah, ba pare non ma. non dañ may déglu musuma bañ a défendre Karim Wade. bu ñu tegee nit injustice je suis le premier à le défendre mais aujourd'hui la distance Karim Wade ñàkk a ñëwam toog bi toog bitim réew dafa peser sur le parti dafa nekk problème parti. non non Nafi Nafi bu a neexee laal man li ma bëgg a wax bu a neex nga yéeg dem ba Qatar ba Qatar. balaa ma balaa mu doon neex li may wax li may wax balaa mu doon neex Karim Wade man maa ne fit bi Ablaye Wade am man maa man maa Nafi Nafi Nafi man. man sànq bële damaa damaa déglu ñëpp damaa déglu ñëpp ak respect soxna si damaa déglu ñëpp ci dal ak teggin waxtaan waxtaan waxtaan ku nekk am nga sa opinion ku sa xalaat non non du làmmiñ bu rëy non non du ay non soxna si non mais attends parce que dama ne la dama laa déglu man sama déglu ma la déglu non eh, ay ñu bañ a déglu ñu bañ a dégloonte mu nekk ñu bañ a dégloonte mais du ma toog fii ngay dem la régression du les responsables politiques non man ma am sama temps de parole a n'a qu'à m'écouter taala am na loo xam ne àdduna du tukki comment je me contrôle oui mais ci yow mais les attaques kon man du ma yëg waaw naa eggal mais naturellement yow lañ jox parole alhamdulilah ba ma eggal sama xalaat dama ne. waaw ah, léegi xooyalal glace. dama ne nga naan quoi. au vu des ah, résultats ma ne xooyalal glace nga naan quoi au vu des résultats. non soxlawuma glace. la politique elle est dynamique mais y a des choses yoo xam ne du ma la ko nangul yow. la politique elle est dynamique. ma nangu boo fi ne même boo fi nekkul ñu lay. attaqué en tant que personne. na fi nañ attaqué les raisons politiques. Oh. na fi mais pas les gens. na fi man yàlla na fi man yàlla def s'il te plaît. man euh, waxuma ci xol bu dee li ma wax daa am loo ciy yëg wala gisuloo maa ngi jéego lu rek suma yaay. léegi yow mon analyse. waaw yëgale ñu jàll ci leneen. j'ai donné un exemple. parce que am nañ rapport boobu man ak. Cheikh. mu naan yaayam nga. Cheikh essentiel yow la ñuy déglu. ko amul problème mais nan laay demee à l' essentiel. oui mais non. mais nee na je suis là pour aller je suis là pour aller à l' essentiel. oui mais vas-y. ma ne ma ne. tu peux attaquer tu peux oh, attaquer le PDF. Eh, attaquer la méthode de gestion. non. Euh, suñu continuer nii ça ne marchera pas. waaw léegi léegi ma ma Nafi ma je n'ai jamais je n'ai jamais été sur les attaques personnelles je fais mon analyse je donne mes positions j'assume j'assume mes opinions man man maa ne j'ai donné un exemple j'ai donné un exemple man du man maa ko wax Baara Gueye moom moo toog di wax. d'accord du man maa ko may ma rek may ma may ma rek non may ma rek ma wax sama xalaat may ma wax sama xalaat après soo paree wax lu la neex. nga daanelee foofu Cheikh. nga wax lu la neex man maa ne au vu des résultats la politique est très dynamique. d'accord et l'espace politique. oui. su amee vide. oui dafay am ñu koy occuper. d'accord. tey boo xoolee sur le plan de la présence sur le plan des résultats waxal ci sa micro. Mhm. bu fekkee coalition wàllu PDS mooy day dem bay woote wàllu ça veut dire que le PDS n'est plus ce qu'elle est. PDS woote ma ne ma ne ma ne. ñi ko def ñoom la. waaw d'accord waaw d'accord ma ne. Euh, xam nga dama ne. Cheikh daanelal foofu. tëgg boo gis moom. Mhm. waxtaan boo gis. Mhm. contradiction la. mën mën na wax xalaatam mën ngeen bañ a bokk gis-gis man ça me dérange pas. mais dama ne dérange pas man c'est la première fois ma toog ci plateau di mun a répondre parce que li nga wax ci doomu jàmbur. Eh. c'est c'est bien. Ah, di wax ay xaw nu mu juddoo eh, doomam lan eh, di doomam c'est pas bien. Omar Talla Omar waxal ci PDS. dinaa ko répété waat man maa ne Ablaye Wade jurul doomam. d'accord ak taxawaay bi Ablaye. jurul doomam léegi na fi na fi yow Omar Talla war nga wax loolu. man maa ko wax. léegi na fi répondre à ceux-là que tey jii problème mu PDS c'est Karim et personne d'autre parce que tey. Euh, waaw waxal loolu bu jugement la homme politique mais quant à ay jurul mais na vous n'allez pas vous disputer sur le plateau. Omar Talla ça ne suffit pas kenn du ko def buñ ma kenn du ko wax si. j'ai dit que les qualités de Abdoulaye Wade ce que Abdoulaye a représenté la combativité de Abdoulaye Wade la présence de Abdoulaye Wade Karim ne l'a pas man déedéet bu ma damaa bëgg a jaxase nañ te du ma jaxase li ma wax dinaa ci dellu amul jaxase li ma wax dinaa amul jaxase ma bëgg a jaxase ak opinion mënoo ko mënoo ko li ma wax laa gëm na fi jàmbaar bi nekk ci Ablaye Wade ban opinion loolu bañuñu ko bu la neexee ma wax ko bu la neexee ma wax ko loolu bu la neexee nga wax ko bañuñu ko waaye jurul doomam moom bu ko wax ndax man du ma ko wax yow jom naa wax dans le sens wax bu feebaree nopp yi koy déggee wér wax su feebaree nopp yi koy déggee wér xëy na sama nopp wax su feebaree nopp yi koy déggee wér man munoo changé sama xalaat Cheikh Omar sa xalaat kenn bañu woon sa xalaat xanaa dama la. Cheikh on a compris ce que tu voulais dire on a compris ce que tu voulais dire. comme comprendre nañ li nga doon bëgg a wax. na fi il faut pas buñ ko jël buñ ko jëlee sens bi mu waxee beneen sens la koy waxee par rapport ak force la wax na fi. lu la suuf sax dagaru man débat ko. alors soxlawu ma ko wëlbati li nga wax moo rafetul man la rëcc. kon na fi on va revenir vers toi. waxee ko neneen waxee ko neneen. je l'assume je l'assume je l'assume. Ah, def rafetul na fi rafetul. léegi na da nga assumer rek nga mën a def di noo mën a def benn ginnaaw waaw loolu de mën naa koo dégg. loolu moom ça c'est la démocratie. léegi na et heureusement l'un s'appelle Karim l'autre s'appelle Abdoulaye encore heureux que l'un ne soit pas Nafi s'il vous plaît s'il vous plaît Nafi dañoo dañoo dañoo nekk non ah, man Cheikh moom man daanaka daan nañ def la suñu dañ ca def maître maître ñu ñu ñu bàyyi na fi mu.